Heavyweight.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 ab hôpital saytu jàngorom ba gis ko sàkk ci safara mala yi tamit naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sakk ci safara waaye nag jàngoro réew mi moom kenn saytu ko ba ci sakk safara moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Tuuba ca Daaru Xuddoos doy na war ab ministre buy woo ci 3LT ati toll ci ñaar fukki at ñaar moo fa jam papa mag yaayam bi jur wëpp loow te nag nee nañu mbir mi lu koy indi du lenn lu dul coowal robinet yes këy bi da doon tere jarbaatam boobu noonu robinet bi naka noonu mu ñëw fekk jarbaat bi ci robinet bi daal di koy sëkkatal ngir mu bàyyi robinet bi ci la papam génnee ci biir néeg bi daa di koy songu nekkoon na bàyyi jarbaat bi ndax robinet bi mu koy tere du poosam la génnee def ko fii naka noonu ci la menuisier bi mere daal di dugg ci biir néegam génne fa paaka déet déet daal di bi xeex daal di ko koy jam ci la yaay ji ñëwee moom it ngir défendre borom këram doom ji manager bi dal ko ci boole moom it dal di koy jam ci tooraa bi waay waay xale yi dañuy mandi wala jam sa baay ak sa yaay fi mu ne nag yoon mujj na cee jot ndax bi ñu ngi koy toppee ci wàllum coups et blessures volontaires ca tribunal bu Jurbel moo tax ma ne dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca romb na doy war ab góor gu mag gu ati xaw a avancé ñaari bët duñu gis moo fa bett ñaar ñaareelam ak góor wopp law mbir mi nag nee ñu nii la demee góor gi ñaari jabar la am bi mu jógee voyage mu sori bi mu nee cëpp ci biir këram ci la gaawtoo daa di dem ci neegu ñaareel bi góor gi nee nag bi mu yegsee ci la dégg ci biir néeg bi baatu góor nee muy avancé di ñëw waaja jaar ci fenêtre ba may ay waay bàyyi leen jabaru jàmbur yi nag bi mu dawee dafa bàyyi portable am mbir mi nag mu gënaa teeri ci loxo yoon ndax bi jëf jooju xewee ñaareelu góor gi dul gis dafa jël ay bagaasam dem kër ay waajuram góor gi nag ne loolu mu def gàcca dongo tax mu def ko waaye nag su delluwul ci kër gi ñëw toogaat ci sëyam téeméeri junneeg ñeent fukk yi mu defoon ci moom dana ko ko fay góor gi loolu la wax ci kanamu tribunal dees nag di ñaareel bi ñu accusé dal dinay xotti accusation yi sànni ni ne góor gi waxul dëgg mosu ko betta góor mbir mi daala kompolo la bu mu naas moom ak wu jëm teg ci ne génn gi mu génn kër gi jotewul dara ak li góor gi wax li tax mu génn kër gi mooy ñàkk a gi ko góor gi ñàkk a toppatoo bàyyi ko ki doomam dal di teg ne góor gi bu ne may na ko téeméeri junni ak ñeent fukk waxul dëgg ndax bi muy ñëw cent cinquante mille la ko may <laughs> waay lii waay lii fuñ koy waxee mbir mi nag teeri na ci tribunal bu grande instance bu Louga te libéré bi ñu koy xaar le novembre bii di ñëw cay waay moo tax ma ne jangoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax Dieyna Baldé mi fi taxaloon Jobiseck na ci coow lu ne weng ba tax ñu jël Jobiseck denc ci kaso bi Dieyna moomu tuddati nañ ko ci beneen scandale cay gone gi ma ne xale boobu génnee ca émission seen petit gàlle tuddati nañ ko ci beneen scandale laa wax bi yoon nag digganteem la ak ab ñu naan bril fight foo china moomu nag nee ñu mook bril fight foo dañ doon génn maanaam bëggante am seenub appartement pu ne yorab caabi ëskay coow li nag li ko indi nee ñu jay naa daa nekk ak bril ba yenn heure yi dal ñaari portable am ci ab dil bu mu teg moom ak frère am bu ñuy wooyee Ali bril bu mu nelawee ba yeewu ci la gisee ne sàcc nañ ay portable am jay naa demaale na na ci période boobu bril si bul dara jël na xaalis sax jëndalaat Dieyna portable li indi coow li nag ba rappeur bi porte plainte mooy dafa jékki-jékki ñu koy woo ci numéroom di ko chantage naan ko yor nañ say vidéo yoo xam ni maara dee taali ni ngi ci nekk ak sa yeneen coro yi moo tax ku ci bàyyiwul nekk ak jigéen di filmer sa bopp lu mel ni doo ci rëcc ndekete yooyu na ko doon chantage du kenn ku dul Dieyna ndax nañu portable mbindaanam la jël di ci otage ci seen de malfaiteurs boobu dem nañ bay supprimer vidéo rappeur bi ci internet bi ay vidéo yoo xam ne am nañ ay millions de vues waaye kii arrêté rajay na rappeur bi di bril nag bi mu sonne ci la porter plainte cay gone gi cay naa nag bi mu yegee ne nañ ci kam ci la jëlee ñaari portable mu sàcce woon ci bril daa di koy sànni ca canal ba nekk ca ngor waaw man maa ngi Sénégal wala ngir brouiller piste yi waaye nag ñaari portable portable yi mu sànni mujj nañoo gis benn bi waaye nag benn portable boobu ñu gis dañ ko fekk mu yàqu yeexeet hmm, ma li xew ci réew mi ëpp na yéen leen seen doom yi laa wax yëfi nag ba mu yeggee ci yoon avocat jay naa nee na li xew du dara du tus mbir mi du lenn lu dul problème mu ñaar ñu bëggante fiiraange am ci ba xew mu jeexe na gannaaw bi mu port plainte bi mu demee ba xam ne plaintam ci jay naa la dal nee na bu yegoon du ko def mbëggeel moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax ba tey ma des ci sama mbokku rappeur ndax groupe bi ñu naan Akhlou Brick Paradise ab son la ñu génnee attaque ci Malakal Mawti gannaaw bi ñuy fooye Malakal Mawti ci seen son boobu xale yi jël ko moddu yóbbu ko ca TikTok ba ku ne naan Mawti di fooye Mawti bi ma leen nag da ngeen a xamul nga nganug mawti billaay ku ci xamul nganug mawti doo ko fooye réew mi nag ma ne fowee nañu yàlla ci musique bi ñu nan deetawaay ñu fowee bi ci musique bi ñu nan deetawaay ñu fowee suñu sëriñ su baax ci si musique bi léegi nag song nañu malaaka yi ma ne leen foofu la ñuy teerale malaakal mawti mi ngeen song dey ko xamul di dégg nga ndax nganug malaakal mawti billaay doo leen ko tala tiktok mu doo leen seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz